nuyu naa leen bu baax a baax am internetu Dakar Buzz mbégte la may joxal di janoog yéen gaaw bu jot ci buzz la semaine nañu ko tàmm di defee léegi-léegi rek ma xuus ak yéen ci faram fàcceeg li jot a xuus ci ay xabaar gën a fës ci biir semaine bi gannaaw euh, fukki at yu mu jiite assemblée nationale Moustapha Niass alxamis gi weesu la doon wàcc ndax mandat wam jeex na investiruñu ko sax ci liste Benno Bokk Yaakaar yi ñe législative yi ñu dëgmal fanweeri fan ak benn ci weeru juillet newul ci liste nationale ga Aminata Touré jiite du it ci départemental ga Alimane jiite Niass dafay génn ci langue politique gi na mu ko xamle sunu ay naataango yu Le Soleil yamul foofu nag ndax Moustapha Niass du doonati rek secrétaire général 2022 gi Idrissa Goudiaby moo di taximan ba ñu faat ca diwaanu Ziguinchor ci manifestation ya woon fukki fan ak juróom-ñaar ci weer wi Yewwi Wi woote woon ko waa këram alxames gi la ñu leen déglu ca commissariat central gox ba ñeel l'enquête bi ñuy wooye wax ni rek Idrissa Bal la ko dóor mu faatu bu nu sukkandikoo ci les échos baayam la takk der yi déglu benn cousin wam ak ay nijaayam baaji nag nee na dégg na ay balu feteel yu bari ba su manifestation Tivaouane dindi ko procureur lancé na appel à témoin euh, ngir gëstu yooyu xibaar rapportu médecin légiste ga nag la mu biraloon moo di lu mel ne jaase la ñu gaañee taximan bi ab taalibe gu toll ci fukki at benn la sëriñ daaram bi di Mohamed a Diop dóor ba mu ñàkk bakkanam ca Joal loolee la ko waxal moo di la mu mokkalu la saaram aljuma ji weesu Abibou Gaye ni rek dafay seeti doomam jaay boori 8 ba mu demee mu fekk xale bi feebar ba sonn lool di wëccu ëllëg sa nag yëf ya gën a yokku ñu évacué ko l'hôpitalu Thiès euh, mu mujj génn àddina gendarme ya daal fay dem ba ñu ko yëgee fekk fukki taalibe ak benn ñu amay gaañu gaañu ci seen yaram yi ba ñu ko jàppee mu nangu la mu def di wax da a jubbante xale ko moom ak moromam ya gannaaw garde à vue wama defeere nañu ko parquet wu Mbour euh, Peter Saleng ñu gën ko xam ci Bachir Diop defeere nañu ko parquet wu Ndakaaru ni ki alxamis gi ñu génn gannaaw rek janom baak parquet ba lañu ko yóbbu kaso acteur u dérapage bi nag dañu ko tudd ci coowal culture production transformation ak détention de chanvre indien nee nañu sax réseau bu mag bu di yëngu ci trafic de drogue la jiite mu sampe ca diwaanu maris bokk na ca lay firnde tuuma ya jumtukaay ya ñu fekk ca këram ba ñu koy jàpp séquestration ak enlèvement d'enfant la ñu di ko toppee Sira Diallo ma sàccoon bébé Aïda mujj nañu ko déféré parquet wu Pikine Guédiawaye alxamis gi weesu gannaaw ba yeneen xibaar ci moom euh, Sira mi ngi am ñaar fukki at ak juróom di sëy ak benn immigré bu nekk Allemagne euh, gannaaw ba takk der ya euh, saytoo téléphone am bi xëy ñu gis lu tolloog 64 xale ci téléphone toll na ci juróom-ñaari at ba mu ñëwee Ndakaaru léegi te dafa ne woon rek juróom-ñaari weer dong la def Sénégal moom Sira jot na dëkk Mbaaw dëkk na benn barak ak Pikine Icotaf liggéey na liggéeyu kër ca Derklé diggante 2016 ba 2021 du kuré mi ne woon njaatigéem moo dëggal xibaar wi Sira laata moo sàcc bébé tegoon na ci ay gëtam doomu dëkkandoom bii di Sadio Kane xale bi nag tudd maam Diarra a doon wax Sadio na ko yónnee ay nataali doomam ji Sadio Milé moo xamal l'enquêteur yi nekk mës na dajeek Sira Diallo mu boota bébé Aïda ba mu ko laajee nag mu ne ko sëram ba ñu hospitalisé moo ko jur juróomi élève ñoo ñàkk seen bakkan ca Lac Rose diggante altine ak talaata àllarba gi weesu itam ay boori 18h30 gis nañ juróom benneeli koor ca plage Apix weti station d'épuration ga ko nag di a góor élèves yooyu leen ne woon classe troisième ca sem ñàkku a gannaaw seen épreuve éducation physique ya la ñu demoon sangu ji ca plage ñàgga gendarme yi ubbi nañu ci polonket ngir xam ñu demoon ci ñaata la ñu toll Nabou Dash brelatina divorcement direct ci Facebook bi weeru mars la ko fi xamle woon gannaaw loolu mook borom këram gi ñu juboowaatoon bi la yoon nag Nabou fasul yéene dellu ginnaaw wëccu na borom tax ñoom ñaar ñu tàkkalit ko dana ñaaw ci moom ak ci waa këram nee na nag ngi ci ay yoxo yu woor jamono ji te kookee da koy waaj a takk ba tey ci ay kàddoom muy wax ni waa ji da na fekk xaalisam fi ay semaine la wax ni rek dana sëy ak keneen ka muy bëgganteel mbirum pédophilie ak acte contre nature la ñuy waxtaanee ca tribunal d'instance wa Thiès waa ji ñu fasalul turam di liggéey ca bureau des casiers judiciaire takk der yi teg nañu ko loxo ba déglu ko lu tollook ay waxtu ci mbiruma góor jigéen nga nag dañu ko bëggoon nëkk nëkkal faf mu siiw sunu naataango yi di xam leen ni rek waa ji mi ngi am ñeent fukki at neexul kenn ca tribunal ga ndax tàmm na lu ni mel nee nañu nag jot na koo def ca TG yi bu Matam ak bu na laata ñu ko affecté Thiès. ba la takk der yu commissariat spécial Touba teg loxo juróom-benni agent wu daayira Safinatul Aman daal di leen placé en garde à vue bu nu sukkandikoo ci xibaar yi responsable moralu kuréel googee fasul yéene jël défense su ndawam yooyee avocat bu raxas na ci ay yoxoom ba mu set boo moytuwulee nag danañu leen wan a leeg procureur u Diourbel bokk na ci ñoom a M Fall ma yoroon feteel ga te amul autorisation benn sëtu ñetteeli xalifa général Muriti la ñu song gaañ ko ci tànk ma nga ba tey urgence yu bu l'hôpital Matlaboul Fawzayni fukk ci membre yu force spéciale ñu placé woon su mandat de dépôt àllax ba gi weesu dal dinañ leen yóbbu rek ca maison d'arrêt et de correction bu rëbës ña ngi leen xaaj nag ci ñetti chambre ca kaso ba journal bi wax ni buuna ba Pape Ousmane Seck Pape Mamadou Seck Assane Dramé ak Babacar Ndaw ña ngi leen yóbbu chambre 3 Abdoulaye Ndiaye Abdou Aziz Niang Ibrahima Diédio ak dikk Diop ñoo nekk chambre 12 kii di Mor Gueye nag la ñu yóbbu chambre 17 moom mi mi ngi bokkoon ci élément yu sapeur ñu dénkoon wàllum lakk gi gëstu ya ñu amal ci téléphone am doon ko firnde la di leen toppee mi ngi yemoo complot contre l'autorité de l'État association de malfaiteurs en rapport avec une entreprise terroriste destruction de biens appartenant à l'État François Mancabou moom defee reeguñu ko parquet ba dafay faju ndax dafa blessé woon rek fa mu newoon en garde à vue si janoom mbaak taskatu xibaar yi procureur u Ziguinchor gi di Pape Ismaïla Diallo xam le ni rek teg nañu loxo juróom-ñaari nit ñeel enquête nga ñu doon amal ci gaal ga suux ca boori Kafountine juróom benn ci ñoom bésu kawteef ga la ñu leen identifié placé leen en garde à vue keneen ka démb la ñu ko jàpp nee na nag dañu leen defee parquet u Ziguinchor ña nga di leen toppee association de malfaiteurs organisation d'émigration clandestine homicide involontaire mise en danger de la vie nag fukki nit ak juróom ñàkk nañu ci seen bakkan am na juróom benn fukki sénégalais ak juróom ñeenti nigérien juróom-ñetti gambien ñetti bissau guinéen ak juróom-ñetti guinéen 92 rescapé moo ca am gannaaw ba mu génnee kaso ba janoog taskatu xibaar yi Mame Diarra Fam dal dinay dal rek ci kaw nguurug Macky Sall gi nee na da leen di yóbbu ci yoon ndax la ko teg loxo ci lu jaarul yoon tax na rek ba mënul dem aji màkk respecté wuñu ay droit ya ko député mu doon may muy wéyal naan Macky da koo dugal dogal ba noppi rek euh, tribunal ga ni toppeewuñu ko dara dafa bëgg di def li muy def te loxoom du ca dugg euh, di utiliser administration beeg conseil constitutionnel bi teg na ci ne rek liste suppléant wu Yewwi Askan Wi dana daaneel Macky Sall daal di tas yaakaaram ci ñetteeli mandat nataalam jotoon na tasaaroo ci réseaux sociaux yi moom jiital grand parti gile di Malick Gakou bu nu sukkandikoo ci source a Malick dafa demoon biti réew ngir ay activité de négoce internationale waaye feebar journal bi woyal naa na jamono ji génn na l'hôpital xamle wuñu nag kañ lay delsi waaye waratul yàgg ndax tabaski gii di ñëw ak législative yi ñaari tabaski ñoo fas yéene amatum ren fii ci Sénégal coordination des musulmans du Sénégal dañu xamle ni gaaw juróom-ñeenti fan ci weeru juillet mooy doon tabaski ci waxtu wa waa Konaako ko joxe bésu fukki fan ci weeru juillet ca communiqué ga ñu fësal dañu ci xamle ni alxamis gi weesu moo di njëlbeeni bésu weeru tabaski gi wala Arafat la gaaw di bésu tabaski fukki fan juróom-ñeent ci weeru juin la ma Mamadou Sall génnoon kaso bàyyi woon fanaatàngum bi mu àndaloon ci mbirum trafic de passeport diplomatique yi les échos doon ñu xamal ba si ñu génn ni kii di bi Biaye ci la waroon a génn kaso taxul nag coow li yam fi ñoom ñaar nag dañu defoon appel gannaaw ndogal la tribunal ga jëloon ci ñoom moom Mamadou Sall ñu ngi ko tegoon daanu ko ñaari at gu mu waroon a tëdd juróom benn weer ya Boubacar Biaye moom waroon a tëdd juróomi weer ci daanu ko juróomi at nga tegoon ci ndoddam lu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 Dut Baram directrice su transcontinental transit bi Ndeye Naan Signan ni moo ko jiite juge bu ñaareeli cabinet bi déglu na ko ni ki ba si ñu génn mu wanalek ak partie civile ba Raoul Chanda ña nga di ko toppee escroquerie ak association de malfaiteurs naan si dafa falsifié woon ay document ngir moomale boppam 35 000 tonnes engrais googu ñu commandé woon ci benn société turque daal kay jaayaat santuñu koko bu ñu sukkandikoo ci l'observateur dafa weddi Atou Mané Sy ak Mamadou Lamine Ngom la doon liggéeyal xamal na juge bi ne moom daal pion dong la ñu ko defoon ngir sàcc yëfu homme d'affaires turc bi teg na lépp ci ndoor di ñaax ñooñu mu lim wax na it ne xamul ka ñu jaay produit ga rawul nag weddi na kàddu ya Nancy wax ba mu set di xamal juge bi ne rek si la déggool ci njaayub bateau d'engrais ga ci société Rie Énergie la ñu defoon commande bi Nancy moo waroon a fay marchandise ga ba ñu ko livré waaye daal cargaison ga def ay fan pooru Ndakaaru ndakaaru gu bees gi daal dina yóbbuwaat tumaren juróom fukki nit ca Makka ñu njëkk ñaa nga dugg rek ci vol bu njëkk ba ñaar fukki fan ak ñeent ci weer wi bu nu sukkandikoo ci les Échos Barthélemy Diaz da leen xaaj fukk ci ñoom dañu retraité fanweer yaa ca des di ay agent en service imam Khalifa Babacar Ndiaye nay conseil spécial am mu dénk ko it lu jëm ci diine gi moo yor lu ni mel moom itam dana dem Makka ni ko journal bi xamle ñeel ne danañu rek yóbbu lu tolloo ko fanweeri conseiller ci bërëb yu sell ya El Hadji Mansour Mbaye mi kenn dootul présenté askan wi dal dinay baxkeelu ci situation politique gi am fii ci Sénégal jamono ji ah, di wax ni njiitu dafa war a woowaat ku jégeeg société civile bi ah, ngir ñu waxtaanaat donte defoon na ko sax waaye daal mu tollonti ko rek ci intérêt askan wi ah, ndax Sénégal méritoowul li fi am jamono ji teg na ci ne rek dañu war a jox cër kilifa diine yi jëmbat jàmm tey liggéey kenn amul sañ-sañu daaneel réew mi Sénégal Macky moomu ko ku jégi yi wax a ar réew mi Guy Marius Sagna ña ngi ko tegoo woon loxo foofu ci diwaanu Ziguinchor ci ndajem dox ñaxtu ga yoon na tere woon te Yewwi Askan Wi woote woon ko ni ki bés yi ñu génn nag la ñu jël ndogal ci moom teg ko daanu ko benn weer gu mu dul tëdd tombo ci ak ñeneen ña ñu tegoon loxo itam ci google manifestation ñoom ñëpp yeewi nañu leen Déthié Fall ña nga tegoon ci ndoddam juróom benn yu mu dul tëdd ba noppi amandu ko ñaar fukki junni ci sunu koppar janoon ak taskatu xabaar yàlla ba gi weesu wax ni Macky Sall da jàpp Papa Momak Ahmed Aidara Mame Diarra Fam ak yeneen i euh, membre yi ga Macky xamul kaso ma waral muy tëj waa kujje gi nee na ba mu demee kaso daa bokk ndax ñoom fu ñu mënti dem dañuy bokk amee na fa ay xarit yu nga xam ni ngoon gu jot dañu daan naan football yi mi ngi leen di gërëm bu baax muy woyal naan Macky na xam ne rek saay su leen tëjee da leen di gën a dooleel di leen jëmale kanam Sénégal a tax ñuy xeex juróom-ñetti nit yaataake woon cortège Khalifa Abdoulaye Kounta brigade de gendarmerie wu Tivaouane defere nañu leen parquet wu Thiès saltine wanelewaat nañu leen procureur le quotidien doon xam leen rek ñoom ñile di ay njegeñaale maire bi di Chérif Lo alxemis lañu attaqué woon kilifa diine gi xeex toftandi woon ca ba ñu am ñu ca jëlee woon ay gaañu gaañu ba ñu saisir si brigade de gendarmerie wu Tivaouane loolee la ko wundu di document ga ministre de l'urbanisme jox ndigal maire Chérif Lo ngir a xalifa généralu Ndiassane gi nag xamle woon fi ne a joxuñu Ousmane Sarr benn autorisation lotissement ba tax na mul sañ-sañ gi ndax famille Kountiou ñoo moom suuf yi te duñu nangu lu ni mel si ay mbind yu mu fësal ci compte Twitter a njiitu réew mi Macky Sall moo doon ca jaale rek waa kër ñi ñàkk seen bakkan ci kaw tef gam Kafountine yemoo gaal ga këpp jaale na itam waa kër gune ya ñàkk seen bakkan ca Lac Rose di ndaw yooyee demoon sangu ji gannaaw seen épreuve éducation physique ya far lapp Gueye juróom-benn fukki at ak benn inculpé nañu ko ba placé ko sous mandat de dépôt ñeel crime d'assassinat dañu ko dut baaxam ni moo faat doomam ji de El Hadji fekkoon mu ñàkk bakkanam ba su fukki fan ak ñeent ci weer euh, juin ca seen kër la njëkk a juddu ci l'enquête bi doon wane ni dañu ko rendi Omar Gueye yóbbu nañu ko kaso gannaaw ba mu janoo wekkatekat bi ba noppi a na nag tuuma ya tege ci ndoddam di wax ni bés bi yëfi di am doom ji ñëwoon kanam la ñu gis néewam ci néegam wax na it ne amul benn problème ak doomam bi te moo di woon taawama doon ko taxawu ci tool yi ko foofee ca Kaaba ca diwaanu ma élément yu brigade de protection des mineurs bu sûreté urbaine daal dinañu ubbi l'enquête ci mbirum gune gi toll ci fukki at ak ñeent dëkk kay waay juróom sa caaxoy sur mer gannaaw ba ko bàyyam sàkko ay yoonu yoon moom mi ile mi ngi am juróom benn fukki at juróom di ab jula ka ko boole police xamal na leen ni yaayu xale bi fekkee na lépp waa kër ga nag la police woolu ñoom ñëpp daal di leen di déglu bu ñu sukkandikoo ci xibaar yi xale bi xamal na l'enquêteur yi ne rek papaam daka seetaan loo ay film yu téléphone am ci kanam yi way juróom bu jigéen ginnaaw loolu tëddee na ko ñaari yoon bu daan nelaw lay profité ci moom yaayam ba ñu ko laajee mu ni borom këram da daan wut ay lay ngir di wéet ak xale bi yenn saay sax da daan bañ mu jàppale ko mu fóotee lay ñeneen nit ba tax na rek mu ni bu doom ji ëmbee baayam la dëggalul tey te weddiwul ni da daan fekkee bu jëkkëram ji doon seetaan loo xale bi yu bon a nee na daal waa tàmm na di ko seetaan ci seen néeg boobu nga xam ne ñoom ak seen doom jee yooyee nee na téléphone simple la yore nee ba mu mayee taawam bu jigéen bi ba tey waa kër goroom dañu ko mere ndax ànduñu ca woon loolu waral ñu bëgg a yàq deram gynécologue ba di biral ni xale ba jaar nañu ci kawam ba noppi yëf yi dafa xaw a jaxasoo ndax xale bi dañu rek cousin wam itam bi sant jaw mës na ko sàkku ba mu amee fukki at ak ñaar newoon classe su cm moom it woon nañu ko ba déglu ko mu weddi tuuma ya l'enquête baa ngay wëy bu ne gi njaay ci fukki at ak ñaar la toll ma nga dëkk ca Touba Touba Jannatu Mahwa baayam nag moo ko doon sàkku nee na jébaloon na plainte ca commissariat wu Touba xale bi di xamle ni ay waajuram dañu tas yàgg na benn ba sa papam ñëw jël si ko ngir ànd ak moom Kaolack ci yoon wi mu jaar kër magam bu góor bi ngir fanaan fa nee na nag kenn newuloon ca kër ga mook baayam bu ñu bokk benn néeg ba ñu fanaan mu am lu mu ko jox mu naan dal di sonn loola papam dal di yegg ci kawam bi mu yeewoo gis deret ci yéreem bi ni rek day yëg métit ci laajee baayam mu tëkk ko ni su ko waxee kenn da koy faat yaayam itam dëggal na la xale bi wax ndax nee na toog na ñetti at yu mu gisul doomam bi ndax baayam da ko yóbbu woon Kaolack bi ñu tasee ba mu waxee doom ji na ñibbi si Touba ci la ne ko papam da ko doon sàkku mu yóbbu ko l'hôpital 28 infirmière bi ni ko ëmbul ah, certificat médical ga leen gynécologue l'hôpital Matlaboul Fawzayni bu Touba bi jox di biro défloration ancienne ci gu nekk fukki at ak juróom gi ah, baayam nag dafa weddi tuuma ya di wax ne jàngam moo taxoon mu yóbbu ko Kaolack Ah, mu def benn at daal di bàyyi ci la ko booleeg benn jigéenam bu nekk Kaolack ngir mën a dellu Touba wëyal liggéeyam am ba sa maison de justice u Mbàkke woolu ko ni ko rek ah, na àndaale doomam ju jigéen ji niki noonu mu wax benn xaritam na ko àndil xale bi Touba ah, si la ñu ko jébbalee yaayam a wat na ni nag mësul tëddee doom ji gendarme bi lee nekk ca na Samba Diéry Diallo dafa muccal soxna si sant Ndiaye te fasaluñu turam ñaari yoon mujj gi nag mu nekk faram moom ndaw si nag commerçante la te it am na borom kër ma nga France moom ak takk der bi atum 2017 la ñu xamante ndaw si jotee woon ak benn maçon bëggoon ko yóbbu ci yoon mu wax ko benn xaritam kookee boole kook gendarme bi mu jàppale ko ni ko les écoles di xamle seen diggante di woy ndaw si daan yónnee borom këram nga nekk biti réew waaye nataal yu mu defee na ko ndayama juree woon am bés nataal ya egg ci porte portable benn cousin wam uh, kookee téye image yi di tëkku jabaru immigré bi ndaw sa wowati gendarme bi ci la ko waxaatee rek uh, ni da ko nopp ndaw si bañ ni ko dafa nekk ci bu ma gannaaw ba ñu njëkkee gisante ñu tàmbali di génn uh, ñu gisante ñetti yoon ci benn studio meublé di fa njaaloo ba tey léegi ko di xam ne ni gendarme bi woowaat soxna si ngir ñu gisee moom it mu daal di bañ takk der bi tëkku ko ni rek dana tasaare image am yamu yor ci moom ak ay audio takk der bi yónnee ko benn xaritam sociaux ni ko ndigalam lay xaar ngir tasaare éléments yi ci réseaux sociaux yi euh, ndamu capturé euh, waat message bi daal di ko yónnee ndaw si ba mu ko dégloo ba noppi mu dem jébbalu plainte ca commissariat wu Pikine élément yu brigade de recherche commissariat ga teg loxo gendarme bi di seen natango ca Pikine tali bu bees euh, ba ñu ko dégloo mu weddi tuuma ya tey wax ni mësul tëdd ak ndaw si ña nga di ko toppee chantage menace de diffusion d'images ak collecte illicite de données à caractère personnel fédération si dañu luwee nag benn immeuble juróom benn étage di fay weer ne juróomi million ak xaaj bu weesoo fédération bi yeneen institution ñu fa nekk bu ci mel ne rek ligue sénégalaise de football professionnel ak itam ligue de Dakar seen siège ba ñu newoon nag bërëb ya mënatul am bureau ya ñu soxla yépp bâtiment ga dañu koy daaneel ngir tabaxaat ko boole kook terrain ba ñuy wax ni moom la dendar ngir bu noppee rek ñu jaay ko benn partenaire gi moo jël en la ca wax yépp ci diiru ñaari Ah, mbokk yi lii la ñu naan di loon tey ci ah, buzz de la ko tàmm di defee gaaw bu jot du ma tay ci di leen ko bamtuwaatal ah, li jot a xuus ci ay xabaar gën a sa ci biir semaine bi la ñu leen di baaxee bu ñu ca noppee daal di leen bàyyee tontu beeg laaj bi ngeen analyser ko seen bopp dama fay jaaree rek di jaajëfal équipe technique Dakar Buzz yëpp di jaajëfal Muntaga waaye di jaajëfal Amadou Si mi fare woon ci caméra bi ngeen gën ko xam ci Junior El Maestro di leen jaajëfal yéen itam di leen jox dig daje ba samedi incha allah